te ay ay ay salaire 4 millions bu ñu fàtte ci diggu digg na nañuy jël suñu ceeb bi nga xamante ne moom moo wax a dem ci aide alimentaire d'urgence bi jël jox ko benn naar boo xamante ne jaaykatu chandise la kooku budget ñaari entreprise am 300000 la ñu jox ko marché wu 19 milliards ah, ah, xaw ma nationalité lu mu doon xaw ma ban nationalité xaw ma ban la yor quelle que soit sa nationalité euh, du loolu moom intéressé mais koo xamante ne ñaari entreprise am yu mu yor entreprise am yooyu boo xoolee seen capital social dépassé wul trois cent mille francs kooku ñu jël jox ko li nga xamante ne mooy marché dix neuf milliards donc kooku tey ku ko ku ko ku ku joxe loolu ku def loolu ci scandale ku def loolu ci diwlin bi def loolu ci suukar bi def loolu ci feneen ak feneen ak feneen def loolu aussi bërki déemu cour des comptes lan la génne ay ñoo xamante ne ay agence ay directeurs yoo xamante ne dañuy jël quarante millions di ko joxe nëwanalu korité ak yeneen yoo xamante ni groupe électrogène bu ñuy loué plus de cent et quelques millions boobu tey président de la République xam lan lañu digoon commission lay ubbi pour jéem fexe ba dossier yooyu am suite donc scandale yu ne ci réew mi yëpp Aliou Sall miy tëdd fee ci corona di ko ñaanal yàlla tan ak wér bu gaaw eh parce que dafa waaw waaw mais dañ koy ñaanal parce que xam nga xam nga dit bu loo yorelee bor moom da koy ñaanal gudd fan ak wér te dañuy considérer Aliou Sall daf ñu yoreel bor jusqu'à que ku ko tuumaal boobu ba tey déggoo benn action en justice bu ñu intenté contre kooku donc dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkk à scandale la ñiy jël ay milliards di ko fowee di ko jox keneen ak keneen ak keneen donc bu ñu jëlee tey ji jox ko professeur Rousner Rousner deful dara ku ko jox nañuy wax parce que ko jox moom moo dem signé ak contrat ndax moo ko jox waaw mais moo tax ma ni la moo tax ma ni la xam nga tey ji fu jeexi jaaxa am da wax comme ku affaire bi na hypothèse la da a am ñaari hypothèse waaw affaire bi am na d'accord soo amul ce ñoom la ñu war a poursuivre. moom laa benn soo amee nag. te nga xam ne ni ngeen ko waxee noonu la amee suba ngeen war a mën a ŋàññi ñi ko def. waaw xam nga xam nga da nga dégluwul peut-être bu baax parce que dama commencé ci faussaires yi bu nekkee amul euh, lu gravissime la. mais dafa a gën a bës. non du tout lee gën a lee laa gën a lee a lee laa gën a condamné sax parce que <laughs> signature état du Sénégal mooy suñu souveraineté ki nga xamante ni mooy président de la République dafa lépp ñu jël suñu lépp dénk ko dénk suñu sécurité suñu lépp ñu dénk ko ko bu ñu déggee yenn mbir yi ñu dégg ci yenn légèreté yi dafay poser problème parce que tey bu ñuy waxee ni am na wala amul yoon am ci réew mi waroon na mën a saisir boppam tey justice bi ñu dégg ko fi ñoom dañoo corona bi ba ki dee mu terewul yoon boobu noonu xam nga lu moo tax mu am benn surdité partielle cest dire lu leen intéressé ñu bëgg koo dégg dañ koy dégg Karim ba mu defee vidéo live ko ci benn télé ko xañ njabootam tey yoon boobu noonu mi ngi seetaan décret di taxawaayu ci mbedd mi kenn xamul décret bi baax na loolu dafa jëm ci coronavirus. waaw waaw taxawal muy affaire boo xam ne c'est actuel. Eh, kenn warta yàq xelu nit ñi. fekk jàngoro bi c'est un danger. Euh, permanent wa waaw waaw non non musul musul musul remettre en question euh, dangerosité euh, feebar bi musul aussi remettre en question existence feebar bi dafa am ay revendications yoo xamante ne da ko mettre sur la sur la place publique. Mhm. te ba mu koy def ci page Facebook am la ko def mais léegi ku mën a jël ki nga xamante ne ci page page Facebook am la defee direct porté li nga xamante wax li nga xamante ne mooy xalaatam mais kooku nan lay xaar. ci décret boo xamante ne ay nit partagé ko xam ne moo ko publié waaw moom wax il se peut que ñu ngi koy wër non il se peut il se peut tant que tant que demuñu nous sommes pas dans les rouages de l'état maanaam yow kenn mënta xam ndax ñu koy seet wala non non xam nga waaw ma daaneel foofu rek xam nga la justice est rendue au nom du peuple sénégalais bu rendre mm. justice dañuy taxaw ni au nom du peuple sénégalais donc bu ñuy waxuñu la loolu te boobu. waaw bi mu compliqué bëgg gars yi damay daaneel rek lenn waaw man damay daaneel rek ci ci ci benn affaire parce que euh, aussi euh, bu nekkee euh, enquête mi ngi am. enquête dañ ko wax rendre public. information non déedéet commencement bi affaire ba ñoom non non am na am a gën a graaw te si saa si dañuy def déclaration euh, ubbi nañu enquête ubbi nañu ah. information judiciaire donc lii aussi waroon nañu mën a taxaw déglu ki nga xamante ne mooy sëñ Bass buñ ko déggee nag. barki dee bañ koy mujj dégg euh, pour pour pour pour pour ni mooy euh, seetal seetal Aliou Sall bu nekkee Aliou Sall la wala wala wala Macky procureur bi dafay am tendance à s'autosaisir mais bu nekkee leneen loo xamante ni on parle de souveraineté dafay mel ni daf ñu dul dégg. tey jii man la koy wax léegi. Mhm. ku fi taxawoon saaga Macky Sall tey tey tey tey tey. laay mu def conférence doo fi fanaan. xanaa flagrant délit ku ko def kay bokk la. doo fi fanaan waaye léegi nag. ku jël suñu souveraineté di ko fowee nag. loolu loolu loolu nekkatul nekkatul flagrant délit mais loolu code pénal da ko prévoir parce que tey jii même bu nekkee information boo xamante baaxul euh, nga jël ko di ko def loo xamante mën na indi soulèvement populaire jël 23 pour cent des sénégalais mhm. loolu ñuy dégg ni ñi ngi jël benn Farba Senghor bu ñu tuddee Farba sax tooñ ko mais ki nga xamante moo ko jox xaalis mooy nday mbilu muy Macky Sall exemple la woon rek monsieur le ministre alors euh, ci ñu nekk euh, peut-être ñu wax Sénégal pays à scandale euh, par ko ci ceeb bi tey ñu doon xaar distribution wu mu ngi koy wax ne que kii di monsieur le ministre Mansour Faye def benn aveu peut-être wax ne yégaguñu ci euh, distribution effective wu lii di euh, aide alimentaire euh, peut-être programmation bi ñu defoon amaana yeggaguñ fa mu nekk loo xamante ne par exemple jur jur na aussi coow ci ci ci ci par rapport ak ni ñu doon wax ne que doon na gën a baax ñu joxe soit par par transfert d'argent wala subventionné subventionné lii di dundu bi est-ce que tey jii lii ave ave bi mu def nii ñëwul conforter un peu li ni ñi doon laaj par rapport à ça waaw loolu dëgg la parce que euh, bu fekkee ne moom reconnaître na ay manquement loolu lu baax la parce que nit ki waroo xaar sañu lay critiquer yaa war critiquer sa bopp xam ni li ma doon def li ma yaakaaroon baaxul damay rectifier. damay juum absolument léegi euh, affaire distribution ceeb man mosuma ci ànd. parce que benn saako ceeb réglé wul coronavirus. Mhm. ñu ngi confiné ñu ngi am problème depuis 3 mois est ce que saako ceeb booy réglé problème mu 3 mois. ba pare Mansour nañ soom bi. moom loolu yële Sénégal nee nañ soom bi. waaw soom bi sax mën na neex de bu amee euh, beurre ak kile. ak soow ak meew meew gloria. <laughs> alors soo kon loolu xam nga day indi coow. Mhm. xamoon nañ ni ci biir marché yi dina indi coow même bu dara amul sax parce que li c'est suspect dina indi coow. distribution dina di coow te effectivement ñëpp dañ ci jot. kon jëlal yoon boo xam ne du ànd coow mooy yoon boo xam ni boo defee benn action ñëpp ci bénéficié wu ku am dina ci bénéficié wu ku amul ci bénéficié wu mais tey jii nii da ngay dégg ne diw gisul ku gis ceeb sax gisul euh, saabu gisul diwlin gisul li gisul lee mhm. loolu nag kenn mënu ko vérifier xam nga lu jafe ci affaire état état bu ñëwee ne tey distribué naa tant de tonnes yow man loo ci xam voilà parce que yow amoo moyen de contrôle da ngay gëm wala nga bañ a gëm kon mën nañ joxe ay chiffres yoo xam ne c'est faux ba pare pour pourquoi ñu insister ci affaire joxe ceeb qu'est-ce qu'il y derrière parce que kiy joxe ceeb mën na ko jaarale ci politique gëm loolu la nii lii ci mbaaxu président Macky Sall la. ah kon la ñuy wax sax. président moo la dimbalee lii est-ce que ceeb bi président xaalis président ma Sall lañu ko jëndee suñuy léppoo la. suñu alal la du président moo dimbali sénégalais sénégalais ñoo dimbali sénégalais ndax xaalis bu dem ci ceeb bi ci sénégalais la jógee. xam nañ ko waaye duñ ko sa war a wax parce que dañ koy politiquer loolu yëpp lu doon dindi coow li mooy wàññi njëg yi wàññi courant le temps corona bi dañ fi. boobu mhm. kenn du coow parce que Diop dina ci bokk Ndiaye dina ci bokk. ak jaxum ba ak puy ak pay. Mhm. kenn du coow mais nu mu demee nii. d'ailleurs sax ñoom dañu di wax ni xam nga ci njël bi ñu wax ni marché yi leerul ñoom ñu ne ñu ne loolu yëpp c'est pas vrai. Mm-hmm. ah non non non fu mu ne lu am importance ñu ngi ci coronavirus li am importance. mooy affaire bi egg ci nit ñi. Mm-hmm. ah non non non non non. non même en cas d'état d'urgence dañu war a dépenser xaalis Sénégal ci ci ci ci ci anam yu sell. am nañ droit contrôler parce que kii joxe ceeb xam nga président Macky Sall joxe na ordre le ministre def nañ li ci war a def mais est-ce que ministre moo joxe ceeb kumpentu ak baaba Garage ak Okadiere ak Gasambiri kon moo ko ñëwee bu ñu ko waxee ne Gasambiri am na ñu njaay bu mu ko weddi bu mu ko weddi parce que boo weddee sa fa kon tu protèges des gens yow yëpp yëbal nga camion dem na mais fi mu egg ak chef de quartier ba ak chef de village lañ ci def xamoo ko. mais mais professeur kon bu lu weddi am na ñu njaaj. professeur ne xamoo ci dara. Mm-hmm. waaw waa man li ma ko bëggoon interpeller pourquoi ceeb c'est-à-dire man xam nga euh, mon problème déjà. dañ fi waxoon ay autosuffisance en riz. donc bu ñu ñëwee ne léegi nañu dem indi importer ceeb pour joxe ça veut dire que plan boobu ci wàllu mbay. jëm si agriculture échec nañ ko. nañu beneen bi yow nga ñëw liñ lay wax ceeb saako macaroni donc ça veut dire ici c'est plutôt une crise alimentaire. Ah bu nekk à côté mais xam nga euh, man lu ma xalaat tey. Euh, bu ñu utiliser woon li nga xamante ne moo ëpp traçabilité jël nangam xam ñan ñoo nekk ci RNU bi xam yan ñan ñoo nekk ci ay ménage mais tey soo ñëwee man fu ma mën a wax fi ma féete laa mën a wax ci sama commune on a mille âmes bu ñu ñëwee ñu ne ménage ñu ne ciblé nañ 3600 ménages xam nga ñoom ménage lañ jàpp mais su ñuy wax ménage dëgg dangay dem ci këru sama mbokku tukulóor wala saraxulee këru location yi benn étage boo xamante ne di nga ci fekk vingt ménages. boo duggee si kër gi nga jox ñaar ne lii mooy ménage bu ñuy amee am na genn wàll gi ñi si ëpp amuñu donc déjà yow yaa ngi créé benn discrimination amul sutura lan moo gënoon noppale ñu jël xaalis bi yónnee la ko ki ngay dimbali xam nga ki dëkk dakaar bu ko neexee dank ceeb mais am na ko dëkk Fuuta bëggul ceeb xam nga lu mu bëgg eh, bu amee lacciri xaaxam day dem jënd dugubam wala mu jënd moo xam ne donc culturellement socialement li gënoon a noppale sooy dimbali doomu aadama moom moo la gën a xam la ma soxla mais c'est comme si surtout que yoo xam nga yoo yoree xaalis mais léegi comme ni ñu business institution il fallait ceeb chargeur xam nga job si gañe si marché bi jaaykatu kebaab bi gañe si yenukat bi gañe si donc finalement le business autour du riz là c'est comme si ils ont continué à affamer le peuple et lii ça montre que véritablement Sénégal véritable urgence mooy nañu affamer le peuple toog leen seen def nañ fi élection ñu yónnee xaalis nit ñi par des bëgguma tudd tur société bi ah. publico publicité ah. fi ah. politicien kenn ko na ko xam nañu joxe xaalis mm-hmm. utiliser bu campagne jotee ñëpp la jox xoolal transfert doo fay camionneur doo fay essence buy dem ba pourquoi ci cas bi yow nga choisir rek joxe ceeb jël camion di ko dawal ba réew réew teg koo dëkk du joxe ceeb. Ah, te mu xam ne miin nga ko. Hmm. waa Ngexo jot nañ. jotuñu de. Hmm. jotuñu dara. <laughs> lekkatul urgence parce que urgence naa la wax naa la tey tey tey tey Mansour Faye dafa àndoon ak euh, général bi ñu dem jëm ñaajo no démb dem jëm ñaaju pour évaluer fii fii départ ak ceeb bi xayma distribution bi ñun toujours ñoom ci li ñuy def ñoom ñun ci la ñuy dépendre pour moo waan a wax ni li ñuy def baax na wala baaxul bi ñu demee. nee nañu ceeb bi Mansour Faye moo ne ceeb bi egg na 100 pour cent yéen ñëpp xam ngeen ni bu ngeen ubbi woon tey antenne rajo wax ñu jot ak ñu jotul. <laughs> déjà lijjantee guñu euh, base de données bi muy list bi nga xam ni mooy nit yi ñu war jox dund bi déjà lijjantee guñu loolu. Hmm. donc mënu guñu joxe ceeb bi 100 pour cent lijjantee loolu ci kaw. càcc ganeen gu ci feeñ goo xam ne ñoom occasion la woon ci Mansour Faye en tant que ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk muy séddale ndimbal ci ñi seen loxo jotu seen ginnaaw ñu koy wax bourse sociale ci biir bourse sociale yooyu ñi seen tur nekk ci base de données bi nekk te ñi ci ëpp ñu doon jot majorité bi du ñu koy yelloo mais man mi nekk ci quartier bi di jiite ñu ni ma yaay tànn ñi ndóol ñi ci quartier bi damay dugal sama jabar dugal sama doom dugal sama mbindaan dugal sama yaay ju dundatul léegi ñu remarqué ni kon ci base de données bi ñu doon ñu doon jot bourse sociale yooyu ci gouvernement bi am na njuuj njaaj gu ci am léegi càcc googu tey occasion la woon ci ñoom non seulement ñu fésal ko mais ñu topp ñi nga xam ni ñoo jiite woon càcc googu moo xam délégué de quartier la moo xam maire la am na benn député boo xam dafa toog publiquement ci mbootaay ñun benn daam ni ko bul ma fontoo yow sa jabar muy fayeeku ci bourse sociale yi dëkk fii biir Ndakaaru député la weddiwu ko effectivement ñu vérifier gis jabaram mbindaanam doomam ci biir ñuy fayeeku bourse social yi léegi boo gisee problème mu transfert bi bokk naa si ñi jëkkoon a ànd mais finalement li tax àndaatuma ci woon mooy problème boobu parce que dañuy tenir compte ci base de données boobu alors que majorité ñu nekk ci base de données bi ñëpp mérite wu ñu jot loolu léegi boo demee ci yeneen dëkk yi de maanaam ciblage yi ciblage yi ñu doon def moo feejal loolu léegi loolu dañ ko war a régler dénoncé ko ba noppi soo ko continuer nag yóbbu ceeb bi te wax nit ñi dëgg parce que boo dee ceeb bi yépp yegg na te ngay kilifa te nit nekk ci gox te amul fu mu la mën a weddee te xam ne ceeb bi yëgsiwul xeeb na la ñu ni ñu ni macaroni bi 80 euh, pour cent. mais mais ñoom mais ñoom d'accord nañ ni que am na ay ay retard yu ñu enregistré par rapport à la distribution. macaroni bi ak diw mais macaroni bi ak diw bi Sénégal yi Sénégal yi xaaruñu ci woon ci ñoom ci ñoom loolu xamul nga li doon xaar ci ñoom dañu toogoon ba yàgg ki gagné marché bi ak suukar si mënut indi li ñu ko laaj ñu xëy annoncé ci presse bi ñu yónnee nañu kooku mise en demeure mise en demeure ba après lu mu mujjaat est-ce que indi na wala indiwul ba léegi yëguñu fu mu indee ñun loolu la ñu bëggoon mu leeralal ñu ko au lieu mu naan ñu 60 pour cent ci sukkar si yegg na 80 pour cent ci macaroni bi yegg na. alors que bi ñuy annoncé bi président Macky Sall annoncé le lendemain Mansour Faye bi muy point de presse kit alimentaire la ñu annoncé woon. ñu def ay CRD préfet yi ni kit alimentaire loolu laay wax ni kon amul ba léegi kon ndimbal loolu ñuy wax noonu ndimbal amul. Mansour doguma la waa jokkul waa jokkul nee na jotagul waaw monsieur le ministre monsieur le ministre pour pour nga permettre nga gën a relance nga gën a lancer. waaw sax li Mansour wax parce que dañuy wax waxu distribution bi gis nga boobu léegi ay coow mi ngi siy juddu. Uh-huh. depuis buñ ko buñ ko wàccee mais lu tax toujours je me pose la question dañoo am ay kuréel yoo xam ne daf ñuy saytu dundinu doomu aadama yi fii si Sénégal lu jëm si agence nationale de la statistique et la démographie.